Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Barthélémy Dias bu ñu ko téyewul Ousmane Sonko dana déggi déga ubbi l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne meerub Ndakaaru bi di Barthélémy Toye Dias ca page Facebook am fa la toog démb fàngaamu fa di tontu ak a yemale meerub Ziguinchor bi di Ousmane Sonko Barthélémy Dias nee na Ousmane Sonko bu taxawee di wax waxi théâtre ak waxi enregistrement naan dañuy manipuler askan wi ak di leen nelawal di dox ci seenum xel dafay wax lu ko neex fii ñëpp xam nañu kan mooy manipulateur bu mag bi ak kan mooy nelawal askan wi ngir bëgg-bëgg boppam nee na ma taxawee di wax naan bu Khalifa Sall doonul candidat ci présidentielle yi 2024 yi Ousmane Sonko lay jàppale booba fekkagul nga am ay dossier judiciaire yu ñu lëjj ca kanamu yoon Barthélemy Dias ne Ousmane Sonko su taxawee ne yëgul bi may dox dialogue bi ak da ca wax mi ngi wax lu ko neex ndax yëg na lépp te àndoon na ci mu ne ko yow faloogo déggagoo monsieur le président de la république tàmbalee saaga nit ñi ak di leen menacer ko fitnal xanaa kon bés boo jiite réew mi doon président dangay far wann waa réew mi Barthélemy Dias li mu yàq Ousmane Sonko démb journal Source mu ci gis moo di Barthélemy mu gàddoon fitalu kalas ni ko fam di ko joxar bi Ousmane Sonko nee na gi maa ngi ci kenn musuma dégg ci wax ju sew ndax dañu maa yar ba mbiri fay divers mu ne tey bu nit ñi jàppee ne coalition yeewi askan benn nit la fi nekkal loolee li muy tekki mooy objectif bi ñu taxaw jóg sensé na libération nañu Barthélemy Dias dal na ci kaw Ousmane Sonko samañ ko ko bu baax a baax nee na ko kàcc yeeg manipulation yi dafa doy politique mënam lëmm man képp loolee du fi am yeewi askan ab coalition la du mouvement du groupement di jeex guerre totale Vox Populi nee nañu moo am ci diggante Barth ak Sonko meerum Dakar bi yàq na musiba président bu parti Pastef bu nuppi nag sàmbaar ci kaw coalition Yewwi Askan Wi liisi ko nañu Barthélémy Dias mu doon ndax nee na jàppale naa fi nit dimbali ko ba defal ko loo xam ne bu ko justice bi yëgoon tey ci cour d'assises laa ki may wax mi ngi may dégg xam na boppam xam na it li may wax wax ji wax ji direct ci news nee nañu mooy coalition Yewwi a jeex Ousmane Sonko ak tibbantey tànk waxtaan di dialogue yu président Macky Sall woote journal bii di direct news gis na ne moo leen tàmbalee féewale keneen ku yabu lool ci mbojjum Ousmane Sonko di Lat Diop xëy na ko ci xët mu njëkk Vox Populi nee na Ousmane Sonko désobéissance civile gi muy woote bu ñu yeggee le 16 mu di bés bi mu war a taxawee tribunal ak Adji bu boobaa dina doon ci moom obéissance forcée Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse faylu ko ci a jëloon ngor l'observateur xëy na ci dellu si ba dellu ca ngor di ñu xamal jàmmaarloo ya fa amoon bërki démb ak la mu fa yàq hôtel bii di ngor jaarama l'observateur a dee ndax la ñu ca yàqule kenn xamul nu mu toll fi ñu toll tembe soleil national nee nañu ak dal amagum na ca ngor loolee ginnaaw solution bi ci njiit réew mi Macky Sall joxe mu di xaaj juróom benn junni mètre carré yi waral coow li séddale ko diggante askano ngor ak gendarmerie lii quotidien bind ne bomb bi naroon a kalaate ca ngor président Macky Sall désamorcé na ko ba moo fa indi jàmm bés bi le jour ne ko jàmm amagu fa la am ca ngor jamono ji jàmmi jëm jëmoor la ndax terrain bi waral coow li toll ci 6387 mètres carrés exactement zëni ngor nee nañu du ñu nangu kenn di ko xaaj baa ñu leen koy séddale ak kenn yéenekaay bi dolli ci di ñu yeggi mesures yu bari yi état bi jël ngir régler coow li vox populi nañu bu ñu régler coowal suuf loolee jolli ca ngor ba jur fa fitna judul jeex nañu jàll ca géejawaay ndax ca foofeet nañu fa caxat-caxatee bande de filao yi bu ñu ci waxul mën na faa indi tension bu rëy woon ko ci kaso bi l'observateur nee nañu